waaw Adama waaw gannaaw ngi nii nag Youssou Ndour si na la mi daal ku doon wax na nekku fi nag mi ngi nii yegg si na. tey la tey la tey tey <laughs> Omar. waaw waa Super Étoile egg nañ ci jàmm. grand baa ngi nii. Birame ngoog Birame Dieng looy wax waa Milan ak lan ngeen leen di promettre ci spectacle suba fii ci Milano ak grand bal de l'Italie. africain yi ñëpp di leen wax ne agsi nañ si jàmm nag fii ci Milan tey donc di waajal concert suba bi le 29 fii ci Milan ak sunu papa yi di Super Étoile donc nag mu bëgg nañ na ko pare parce que ñun agsi nañ te ne nii ñoom rek ñoo la ñuy xaar ñu dóor affaire mu daanu. monsieur a bokk waaw nañ daal. suba gars yi yegsi nañ. waaw ñu ngi nii ak ak Adama. mais dafa am na ñu doon wax naan dañ ko fomm gars yi yegsi nañ. non gars yi xamuñ nu mu demee. waaw ah, bëggoon yàq. di jox ne ñu ko fomm gars yi yegg si nañ suba ñu tëgg ba tonton Youssou ne la suba grand bal la dafa nañu dañu nam waa Italie Italie ci boppam lañu nam incha allah bu subaa moom dana tàng jërëjëf maa wax loolu Pa Moussa acca na mbay Pa Moussa ngi di ñëw Pa nii di ñëw wax ak waa Italie waa Milan parce que gars yi dañu doon jàpp ni soirée bi dina am ak du am waaw kon kay lii jeex na. waaw waaw yegg si uh-huh. loo promettre gars yi yi nga daan def. grand Mbaye Ngok jëloon naa ko sànq mais moom cëm. magu sama xarit. fii ci Italie fii ci Milan. way Baye loo wax waa Milan waa Italie. come stai? a posto, grazie mille, bellissimo. Mm. mi ngi fii ci réew mi Tani Diop wasaare. cëw jeex na. nga ne. place bi fan la. Terza Dada. wax ko. Terza Dada. Uh-huh. suba suba Terza Dada via Marzini 58. à partir de. à partir de 22 ak lépp daa ma xool benn affaire Youssou eh. Ndour bu leen ne 22h 22h la. ah di. mais bunti bi wax na ko mbay wax na ko affaire de professionnalisme la. Tani Diop wasaare. dama ne 19h wér leen kàkkee yëpp dajee ko. ñu jox leen ko yéen dinañ leen rey <laughs> ba subaa jàmm. jaajëf dinañ leen dëggal ba ngeen dof <laughs> mi ngi noonu. merci grand. day jeex